bay te mu am engrais de fond ci diiru ñaar ba ñetti fan laataa ma ji ma pulvériser benn quantité bu 7 ba 8 pulvérisateur wala siwa ndox yu 15 ba 18 litres hectare bu nekk. bu dee toolu ceeb mbokk dugub gerte boo xamante ne mos nañ cee bay damay natt ñaari bouchon green ok ci 15 ba 18 litres ndox ma pulvériser ci kaw NPK yi ci suuf si. bu dee appliqué nañ ko ak itam ci kaw urée bi bu dee appliqué nañ ko jàppaleen ne NPK mooy azote phosphore potassium damay pulvériser quantité wu 7 ba 8 pulvérisateur wala siwo ndox ci 15 ba 18 litres hectare bu nekk jàppaleen ne boo leen di pulvériser Green OK ci suuf si da nga ci téléphone téléphone rek bàyyi ko ci loxoom Touba Kër Niang communication chez Mamor vente en gros ak demi gros lépp loo xam ne dafa jëm ci téléphone wala batterie wala flashka écran connecteur chargeur back cover habillage accessoire pour bépp réparation wu téléphone loo soxla ñu réparer la sa téléphone matériel ba moom am na ko maam dafay dem ba Chine dem Dubaï indi ayca jërë ngeen jëf mbokk yi bàyyi xel seen chaîne bi di Baol TV Naar Fall mu ngi leen nuyu di amaan mbégte ak contentement di jàkkaarloowaat ak yéen mbokk ñu nuyu ñëpp di siyaar ñëpp di nuyu kilifa diine kilifa aada yi mbokk yi ku ne xam na ni suba la 5 novembre bis bi ñëpp doon xaar war a dox ci diggante Ama Baldé ak Modou di combat royal mbokk yi tey la samedi 4 novembre suba cinq novembre incha allah ñu war a jëm ci bis bu mag ñu waaj ko nag cinq ans. gars yi naan dina am am du am looloo waral ñu déplacé wu tey ci samedi ci ngoon gi ñëw fii ci arène nationale jox leen information yi nga xamante ni moo fi am. fekk nañ fi nag le promoteur Luc Nicolaï ak ñi nga xamante ni ñoom la àndal ci liggéey bi badu duñ def lu nga topp ma ñu xool gars yi ci lan la ne ak ci dernier réglage yi fuñ ci toll aca badu aca ci yar nan la dellu ziar wér-wér tey ñëw fii ci arène nationale yaakaar naa yéen a ngi ci dernier réglage yi. Mhm. jëm suba le 5 novembre ci combat royal bi. Mhm. waaw ñu ngi jëm suba incha allah le 5 di ñaan yàlla rek mu may ñu fanaanum jàmm comme yaakaar naa noonu waaj ay weer ba mu des tey. Mhm. kon sant yàlla. ndax lu ne dégg nañ ko lu ne gis nañ ko. kon bu yëfi egsee fii rek dañuy gën a sant yàlla. di ñaan yàlla ni ñu suturaale ba ñu si tey. mu suturaale ñu ba ñu suba. ci kàttanu yàlla. Uh-huh. en daal lépp daal ci kàttanu yàlla mat na te jàpp naa nit ñi seen xol na sedd. mais ñu gis tey ngeen teel a ñëw nekk ci organisation bi. bis bee ko laaj wala la la. waaw bis moo ko laaj nag ndax xam nga bis bu toll nii. ba pare combat royal il faut nit ñi ñëw pour teel a organiser police ñëw gendarmerie ñëw. ñu ànd coordonné vraiment waxtaan xool yenn dispositif la ñuy jël ba xam ne suba képp ku fi ñëw sa xol na sedd amateur bu ñëw jënd bi doo mer. fans club bi du ñëpp nañ kontaan ñëpp nañ bëgg ndax loolu la ci noonu la ñu nekkee. suba lan la suba innovation yu bari ndax yaakaar naa gis nga li ñuy monté. Uh-huh. soo gisee rek xam ne suba fi moom daa du sedd naar. Mhm. mais gars boobu léegi ñu ngi laaj billet yi fu mu toll. waaw billet yi disponible na à de vingt tey dañu leen demee mais léegi dañ ko def à partir de vingt heures mhm. ci kanam tuuti bientôt incha allah ku ñëw fii di nga am billet ku dem Issa Diop yow Mar di nga am billet ku ñëw Canada sama place mhm. di nga am billet képp ku dem tamit euh, Alburax di nga am billet euh, képp ku dem ci ODK yi station di nga am billet incha allah. incha allah jaar naa la sama doom day di nuyu mbokk internet yi suivre Baol TV yëpp ñu ngi leen di nuyu di rafet lu baax euh, sa liggéey waaw. macha allah tey ñu ñëw fii ci arène national yaakaar naa suba la 5 novembre di combat royal ñu ñëw fekk la fii gars yi nekk ci organisation bi Mor nan la ko dundee ak nan la gisee organisation. waaw xam nga suba mën nañ ne làmb joo xam ne. wax dëgg yàlla fii ak 10 si kanam dañ koy waxtaanee. Mhm. muy combat soog diggante Ama balde ak Modou Euh, sunu frère muy ko Nicolas tegu ko jël organisation bi yëpp teg ko si loxo Baye Ndiaye ak Fallou Ndiaye. Mhm. ku ne Fallou Ndiaye nag ne moor daa am relation yu particulier yu ñu seex muy sama lépp. moom lu mu nekk rek ñu dañ si nekk accompagner ko gunge ko pour organisation bi suba mu jaar yoon set. Euh, te incha allah liñ fi gisagum dal na xel. dina am spectacle dina am concert dina am lu bari ay innovation yoo xam ne suba amateur bu ñëw doo réccu li tax nga jënd sa billet. di ñaan yàlla amateur yëpp fekkee ko si jàmm ñu ñëw dund feet bu mag waaw ñaari mëri nag. muy Modou loo di Ama Baldé nan wane jom parce que uh-huh. tamit combat woo xam ne quatre ans cinq ans ñu ngi koy coow. Uh-huh. kon tey jii su jotee ñu ne suba la ñuy bëre nañ si def fulla def si fayda ban lañ doon xaar si ñoom uh-huh. ah ñu def ko daal waaw. mais daye combat bi parce que dañoo ñëw fekk arène nationale changement boo xamante ni yaakaar naa lépp luy seize nekkoon ci stade bi yu ci bari dina nañ ko. waaw naar mën nañ ne sais yi nii waaw yàgg nañ ko réclamer amateurs yi yàgg nañ ko kaas parce que da ngay gis mbër daan sandi mbër daanu sandi mhm. ñu dem ba booy def ko phénomène ñu jëm si làmb joo xam ne nag mën nañ ne wax dëgg yàlla. Euh, lambitation la. kon nag tey jii dara loo xam ne mën na empêcher journée bi euh, benn gàllankoor dañ ko war a mën a effacer dindi ko. moo tax tey ban di dindee saisi lu rafetlu la. Uh-huh. leen la ñuy dénkaan CNG bi rek comme dër bi ni mu mel nii nañ ko pentir vert zone rouge. Uh-huh. day mel ne saisi yaa ngi fa waat quoi. loolu la lu ñu xaar la neuf. waaw le 9 décembre Giro Seras Abou Ndiassé Thiandoum de Thiatou Kairé Bib Diop Bébé Garga. Ah, Véngolo Marley Junior mën na ne gala la ay six ah, grands combats ay kiriku dañ siy bëree. waaw mu Kaana Baas da siy bëree digganteem ak booy jàmm gën bi. waa bëri na daal ay boo yoo xam ne sélectionné leen te incha allah le suñ ñëwee si arène bi. Hmm. dinañ xam ne indi nañ tànn nañ indi nañ lu doy waar daal. saa boo am tëggee amateur yi am na solo. siyaar naa la Père Kairé. delloo siyaar fii na leen def. yaa ngi am jàmm da doon xool experts yi fi mu nekk man dama gëlëm fi mu. experts yi moom kenn mënu la cee génne. dañ ñëw fekk la ci arène nationale tey samedi suba war a nekk combat royal ngeen nekk ci organisation bi. Mhm. waaw non dama fi ñëw juste pour euh, invitation waa Lutte TV yi dañu war a def léegi euh, euh, benn kii spécial. plateau spécial donc invité woon ma. ma daal di ñëw rek xool ñoo fekk vraiment macha allah. préparation bi daal tu sens que ne suba c'est une grande fête c'est une grande fête de la lutte waaw boo xoolee atmosphère bi rek. xam nga déjà ni nga gisee organisation bi daal doy na doy bi bu subaa bu subaa je pense que ne li ma gis nii est-ce que lii na fi ma sam sax waaw est-ce que lii dina li ma gis fii daal mu commencé nii est-ce que lii dina ma sam ci làmb. ah combat bi da bëri lool. waaw moo tax euh, li olof naan nag bu rëy. Mhm. ci bés bu rëy lañ koy. lañ koy rey mais boo gisee lii nii vraiment comme li tubaab naan apothéose mhm. li am fii suba apothéose lay doon parce que ñaari mbëri ñoo tol noonu mhm. ñaari mbër yi ñoo wane seen ay preuve mhm. ñaari mbëri ñoo dëkk ci ay gox yoo xam ne dañu bëgg làmb di ko dund seen ay mbër jaral leen lu ne ñaari mbër yi mën bëre ñaari mbër yi mën xeex ñaari mbër yi waajal bés bi ñaari mbër yi ñaari mbër yi ñaari mbër yi. yaakaar naa seetaan nga seen open press ñoom ñaar nan nga gisee seen état de forme. waaw xam nga euh, des fois de loin peut-être ay image rek ngay gis pour mën a juger mais tey ki jege mbër mi sës ku rëkk moo xam mais ñun si lu ñu gis si lu ñu gis ñaari mbër yëpp préparé nañu parce ku ci pare rek da yab say mbokk. na pour dire vrai. ñoom ñaari ku ci parewul non da nga yab say mbokk li tax nga yab sa mbokk mooy un combat royal ku koy bëre pare na. coolee fi nekk nii nag diw nii la toll diw nii la toll mais ñi koy bëree yabu yabuñu seen ay mbokk. yabuñu seen ay supporters yabuñu seen ay fans club ñoom ñaar yëpp pare nañu. coolee fi nekk nii rek mais ñaari mbër yëpp pare nañu. mais ñi naan Ama dafa wàññi poids. gis nga wàññi poids ci Ama. Euh, xam nga stratégie toujours day am Ama dafa nëbbatu ñëpp ba tey dafa nëbbatu moo tax ku ko jugé rek da ngay juum parce que stratégie bi mu indi bi dëgg dëgg dëgg dafa nëbbatu te xam naa nag bés bi moo tax mu nëbbatu. nëbbatu nëbbatu comme nan la nëbbatu. mais nëbbatu parce que xam na ne fi mu jëm euh, fi mu jëm yombul. mu nëbbatu ay mbokkam nëbb ko lël ko. ba ci open press ñu gis ko ñuy jugé. ñii wax lii ñii wax lële mais man li ma mën a wax mooy man de li ma gis pare na. Ama pare na pare na. macha allah ku wax ku waxul ku wax leneen nag yow la de mais man de ki ma gis pare na. Mm-hmm. noo gisee Modou Lo gars nee nañ moom it dafa yokk. waaw pare na parce que Modou booy xool depuis mu jógee ci ci blessure boobu ñu bopp bi ñu renvoyé ba ba tey à chaque fois yaa ngi koy gis si internet bi ah moom moom moom nëb boo nëbbuwul quoi moom dafa war a carrément ne dafa war ne maa ngi ci. Mm-hmm. maa ngi ci guddi maa ngi ci bëccëg. ñëpp gis euh, évolution muscle bi mu am ak euh, moom nëbbatuwul donc loolu mooy différence bi kii dafa nëbbatu kii nëbbatuwul looloo am kii dafa nëbbatu kii kii wane boppam. la mooy arrangement wu combat ah, Ama ci bëre bi. waaw am na lu mu doon am na lu mu doon bëre Ama Ama c'est un moom il est offensif Ama dafa offensif ci bëri loolu moo ko may sax li mu leex ma egg si fii ah, boo boo buñ demaa buñ demaatee ginnaaw tuuti. combat yi mu gagné yëpp daf ko attaqué yi mu perte aussi daf ko attaqué te ndox du bàyyi yoonam mais nag cette fois ci donc am na yaa son staff te combat yooyu mu bëri yi paase ak bi bokkul li leen wutale rek mooy euh, li mu bëgg muy la couronne loolu moo leen wutale léegi couronne boobu il faut que bi aussi liggéey ci saa façon de pour gagner Modou je pense que ne war nañ ci liggéey sa staff loolu lay jëriñ. staff loolu mooy xool toog réunion toog waxtaan xool xool teg ay combat Modou xool yi mu gagné yi mu perte xool ko ba ba xam ne lii mooy clé du kombaa bi ñu jox ko ama bu dee bu dee def nañ ko ah baax na bu ñu ko deful nag duñ si mën a sori. est que Kayre bu indi tey euh, Ama Balde attaquant la di nga attaqué loo Modou <laughs> mais su sama njëlbeen wax nee naa la <laughs> ndox du bàyyi yoonam loolu la mu ne mais li si xaw a différence mooy bés bi mais xam nga fi làmb ji toll ni que suba la am na yoo xam dañ koy godee ba après <laughs> ñu eggale waxtaan bi ñoo ci drapeau bi drapeau Moustapha Gueye ni bëri ñoom ñaar waaw mu ngoog une première si monde de la une première si làmb parce ñun dañu bokk société bi am lu ñu représenté Sénégal xëy na nag bëri na peut-être yu bëri yoo xam ne mi ngi am ci làmb peut-être buñ sa buñ sañoon nuñ du am moom comme violence bi ngay gis ni tey ngay gis ñu dindi. dindi dindi siège yëpp. peut-être mënuñu ko rafet lu mais lu lii lu gën la. dëgg-dëgg ànd naa ci. parce que dañ ko daan digg di ko sànnante te bu la dalee mun na la musibaam donc CNG bi toog waxtaan ba xel yëpp rafet ñu dindi ko mais rafet na nii sax je pense que ne kenn dootul gis ay siège yu naaw kenn dootul gis dara bien. mais euh, président Moustapha dafa marqué l'époque am ci làmb aussi pour dire vrai il a il a lutté avec beaucoup de champion def fi ay jaloore mais en général promoteurs yi bon defaa si tu les comprends dañuy tudd nit ngir drapeau ngir am dara en retour mais li xool ba un euh, combat royal loo xam ne mosul am ci làmb nga tuddee ko mbër kon ñun la sagal kon wone na kon ñun liñ fi defoon démb mënul effacé wu waaw ay mbir yoo xam ne la. xam nga ay ay teg nañ euh, kii euh, emprunté la quoi. Uh-huh. waaw lii mu def nii l'histoire retiendra le premier lutteur bu ñu tuddee un drapeau euh, kii royal non Moustapha Gueye la. donc honneur boobu nag ñun ñëpp la ko defal. ma na incha allah suba ancien gloire dina ñëw wane daal ñun bés bi suñu bés la incha allah rabi waaw. bàkk la bàkk Boy Kaïré rek gars yi namm <laughs> waaw dañ koy nëbb rek foofu bu subaa lépp surprise la. incha allah lépp surprise la incha allah. incha allah kontaan na salaam.